mais délégation nag représentation la buñ la yónniwul doo dem. waa mais lu tax. non da ngay laaj ki yónnee lu tax yónniwu ma. waa man mais man dama lay laaj tamit est-ce que yow boo defee sa introspection. Euh, euh, est-ce que lan la ban conclusion est-ce que dafa am loo def est-ce que da nga nekk euh, da da nga da nga waroo ak la ligne du du du du parti est-ce que dañu lay accuser de collision avec l'adversaire xam nga yéen ligne du lan mooy problème bi xam nga yéen ligne du parti da ngeen koy wax nii rek ligne du parti mooy lan. parti baa ngi dox dox am li mu war a def mu ngi koy def li mu war a def du ko def parti bi lan mooy ligne mooy une réunion du comité directeur deux fois par mois. depuis di loolu fonctionnement la. ah waaw fonctionnement bi ah mais ligne bi mooy tax nga fonctionner boo fonctionner doo am ligne la ligne elle est pour être appliquée par le fonctionnement on n'a aucune réunion boo xam ne bi nit ñi mën nañ ci daje di wax li fi réunion ma jox la ko par exemple. y a la commission nationale chargée de la vente des cartes xam nga ñaata personne la ñu je parle sous le sous le sous le contrôle de de Joseph Ndom et de Assane Ba ñu ngi may dégg nous sommes 177 ma suñu convoqué réunion bu am 10 personnes man ma suñu ma ci woo et c'est moi qui ai installé la commission nationale de vente des cartes. mais ça pose problème la ci woo. waaw déglu ma. Maymuna xam nga Moussa siise ñëwul ci émission yi parce que waxuloo ko lu tax Moussa Cissé ñëwul ci fii waxuloo ko mais rek ma woo ak ni nga ma woowee ak ni ma la ko nangule te ni nga ma woowee am na ñoo xam ne woowoo ko ñeneen ku nekk sa relation ak nit ak lañ te bëgg moo nga koy defee dafay am sax ci sa ay invité duma ci dellusi donc loolu am na man kenn woowu ma mais nit man fu ñu ma woowul duma ma fa tas aset mais man nag loolu laay interroger wu. non pourquoi ah, pourquoi pourquoi Doudou Wade boolewuñu ko ci yenn yi. mais pourquoi Doudou Wade woowuñu ko. non pardon pourquoi Doudou Wade bokkul ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mettre en œuvre les décisions émanant du secretaire général national. Ah, attends xam nga décision yi jot naa ko la décision sur les sur les montage dañuy wax ne def leen lii ak lii ak lii ak lii. j'ai posé la question ma ne ma ne leen yéen ku nekk li la structure jox not administrative bi amul kenn ci yéen ko ko appliqué benn dañ leen wax ne def leen ko ci fu ubbeeku bu ko leen def kër nit ñu def ko ci benn salon benn salon kenn mënu fa monter cinq hectares ou cinquante personne et mais prochain doucement doucement may mun a sinon tu ne comprendras pas ñaareel bi ñu wax leen ne boo leen demee fet l'appel ngeen dugal délégué yëpp ci biir boo leen duggee commencé leen élection yi bu fekkee ne fekku leen fa consensus si vous ne trouvez pas consensus passez systématiquement je souligne l'adverbe Abdoulaye Wade moo bind foofu systématiquement au vote mais construisez le consensus avant mais ba léegi ñu ci ay chercher ay consensus bi ci des ki koy diriger je prends à témoin Assane Ba woo ko invité ko Joseph Ndaw sa Sall ma ne ko yow lii ak lii mooy si liggéey mu ne loolu amu ko donc moom note de service bi joxe fonction yi wax ko li moo ko def xamu ko nit boo ko joxee lu mu xamul mu yàq ko. ki ñu jox loolu xamu ko.